a gisee fi ñu nekk ñoo ngi fi nga xamante ni mooy Jannatul Maxwa ci kër ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou Wahab Mbacke moom Serigne Modou Fati Xarim Mbacke moom Serigne Massamba ñu ñëwoon tey euh, doon fi def li nga xamante ni moom mooy euh, bëccëgu màggal gi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo yi nekk ci kër gi ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci bisu màggal gi waaye tamit dinañ euh, sekk waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne mi tamit mu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu daara ji ak li nga xamante ni la def ci bisu màggal gi yëpp dinañ leen ko dégter wan leen ko ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi lépp dinañ leen ko wan daal ci bëccëgu màggal gi euh, fépp ci kër kilifa yi nekk ci biir euh, Touba euh, rawatina ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi bismillahirrahmanirrahim ma ne sante sunu borom julli si bu tedd bi sant sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal maam moor bu sëñ Masamba bi jëw ñu kër sëñ Massamba mooy xalifa bi man mii nag si boppam seen Cheikh Mbacke bu sëñ Modou Fall xarit si boppam moo doon sama sëriñ di magu Abdou Wahab mu dem àjjana bu yàggul rek si boppam ma jokk dellu jokk si sëñ Abdou Wahab Mbacke si boppam ndax dama am njaboot gu nekk ak moom muy soxnaam ak mbakka mbakka yi nga xam ne si boppam meññ na leen li gën a yokk tax ma jokk si moom mooy njaboot gi ma am ak moom si boppam day moo ma boole ci sëñ Touba di ñaan yàlla it mu yàgg fi lool ànd ak wér ak wérle di koy doole santit ci taxawaay bi taxawaayu màggal gi su boppam ñun ay taalibe rek lan waaye fi ñu joxoñ rek lañuy xool te magam ju baax ji su boppam dafa ma mos a joxan sëñ Abdou Wahab si kon fa ma joxoon nañu si boppam fa lay féete. Euh, man la Ndiaga Seck euh, di wóllare ci sëñ Abdou Wahab Mbacke gannaaw loolu maa ngi sant yàlla sant Serigne Touba euh, di sant Serigne taxa Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. loolu sëñ bi loolu dañ ciy sawar parce que ñun man dama bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ci àll bi ñu ngi féetee weer ci boori Italie sëñ bi taxawuñu. di ñu ci euh, maanaam yóbbu ñu ci yoonu Serigne Touba wi duñ ci sonn bis bu set waaw mënuñu dara lu sant ko rek te dëgg yàlla bis bu set mu ngi taxaw di ñu soññ ci liggéey bi ah sonaluñ ci dara kon dañ koy ñaanal rek li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko sëriñ Touba defal ak Serigne Modou Fatou Fadi mi ñu yaakaar barke Serigne Touba. waaw li ñu sëñ bi sas si waxtaayu màggal gi comme ni ni Baye Fall di doxee daal. moom lañu ñu bi sas instant yi nii parce que ku nekk ñun Baye Fall dañoo war roy suñu mooy Cheikh Ibra te Cheikh moom lan lañ wax si Baye Fall yi takku jóg xam te sëñ bi moom loolu la gën a moom tamit loolu la gën a bëgg si mbirum Baye Fall moom sax boo ñëwee moom day mel ni sax moom Baye Fall la moom si boppam parce que moom nee na chaque jour liggéey gi moom sax da nga njëkk ji si waar bi kon nag ab taalibe moom waroo sax sax bi xaal sa sëriñ san mu xam ne mooy suñu kilifa gi kii nii baax parce que kii dafa am ñoo xamante dañu ay royukaay lañ si kër gi ak suñu sang bi moo la suñu jëwriñ waaw ñii nag suñu mbokkum taal ay boy faal ñii ñëpp ku si nekk ñu siy def sa kër talaay te kon bés it sëriñ Tuubaa ak Seex Faal la ñu war a roy Seex Faal rek bés moom nañu roy rek. xam nga chaque jour du am na loo xamante ne nit di nga bëgg si moom ba doo mën a wax si moom mu ëpp parce que moom dafa ñuy def loo xamante ne da ngay ñëw sax ànd ak nit sax ñu naan la ana sëñ te fekk ne moom ngay jàkkaar lool ñëw dañuy liggéeyloo di jëriñ jëriñ tax ñuy jëriñ di ñu defar am ñoo xam ne ay éléments ñu ngi fi woon dañoo sànq woon comme sama classe gii mais sëñ bi dañoo defar te bëri na fi kon duñ def loolu sant ko di ko gërëm di ñaana ko fan wu gudd ak wér gu yaram ak yokkute yal na ko suñu borom si doole Cheikh Ibra Fall. waaw ay kàddu cant lay doon muy ñuy feddali sunu taalibe ci kanamu sëñ Abdou Wahab Mbacké ibnu sëñ Modou Fati Xari ibnu sëñ Massamba Mbacke ñuy euh, euh, feddali sunu taalibe ci moom mu doon sunu bunt ci yoonu sëñ Touba muy koo xamante ni ñun sunu royuwaay la ndax euh, depuis lu mat ñaar fukki at ak juróom ñi ngi ko ànd ak moom depuis fële kër gu mag ba fii ñu nekk nii ci janatu ak lépp li nga xamante ni mooy réalisation yu mu def ci diggante boobook léegi ñun mu doon yokkute ci ñun waaw ñu gis ni ci mbaar lañ nekkoon commencé fa di fa màggal ba tey ñi ngi nii dañuy rey ñaar wala ñetti nag di ko euh, di ko màggale kon ñun royuwaay lañ ko def di ko ñaanal euh, yàlla yàggal ko fi lool te waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, Serigne Abdou Guèye Sylla lañ koy wax nekk taalibe Serigne Abdou Wahab Mbacké eh, nekk Baye Fall bu waañ bi eh, nekk tamit jëwriñ ci biir kër gi waaw ñu nag suñuy kàddu du bari day nekk kàddu yu cant rek ndax jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñ Moussa moo xam ne moom moo nekk moo moom moo nekk suñu kanam ak sëñ Ibrahima Male ñoom bu ñu waxee rek daanaka amatuñu luñ ciy wax ñun ndax ñun ndigal rek moo nu bàyyi fu nekk ñun ñi nga xamante ni ñoo faree ci liggéey bi nekk ci waañ wi ñun toogewuñ fi lu dul ak ndigal eh, def leen ñu def eh, bàyyi leen ñu bàyyi taxaw leen ñu taxaw dox leen ñu dox ndax loolu rek la ñuy ñaan yàlla ak yonente beeg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di def lu dul eh, sant sëñ Abdou Wahab Mbàkke moom mi nga xam ne mooy sunu buntu ci kërug sëñ Tuubaa gii ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm ngërëm loo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ñuy sant yàlla bu baax ci bim ñu naale ci boppam Eh, ba nu mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon nag amuñu fayam ñu ngi koy am eh, maanaam sant sant goo xamante ni amul fu mu tàmbalee waaye amul it fu mu yem waaw. yu bari daan manqué ci kër gi waaye bi defee sécurité xool nañ rek ne dara manqué wu fi kon nag lima lay wax rek li Sëñ Abdou Lahad waxoon rek laa lay wax mbay mu nangu xool yi nangoo ko gën waaye day fekk ñun ñëpp ñu nar nangu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndaxte mag nga jiital ko mu jël gone teg ci wetam gone nga jiital ko loolu dana xaw a métti waaye lépp nag dañ koy sant Sëriñ Tuubaa ndaxte ku ci nekk li ngay jëf jëfaloo ko keneen sa bopp nga koy jëfal ndax loo jëf rek loolu ngay fayeeku waaye ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax ñoom ñi ñëpp ndax nangul nañ ma loolu ndax dagg nañ seen i yitte te ni ñu ko defee nii lañ ko defee ba bis bi si ndax bu bis bi delsi danañ ci fàttaliku Serigne Modou Faty Khary muy waajuru Serigne Abdou Wahab Mbacké moom fii lañ ko koy fàttaliko te ñoom ñëpp dañ ciy toogaat tamit ba keroog bis bi si ñu ànd ko bi noonu loolu lañ fi li dara lii te ñu ñëpp ku ci nekk fa nga war a taxaw yaa ngi fay taxaw di defar te dara manqué fi dara yàqu fi lépp rek ngir yaatal gan ñi ak kenn du leen sonal ci dara loolu dong tax ñu def sécurité bi. waaw ñun maa ngi jógee ba Kaolack nag waaw organisation bu baax rek chaque année ñu koy organiser def ko organisation bu baax parce que fii dara du fi manqué ndugg mi lépp day mat day doy macha allah bu ñëwee togg ko togg yu neex yu baax ñu séddale ko nit ñi lekk ba suur naan ba màndi sant sëñ Tuubaa rek. waaw sant sëñ Abdou Wahab sant soxna Adja Jaxate tamit ndax lépp moom la ndugg mi dara manqué wu ci barke Serigne Touba. waaw organiser Pastef rek affaire yi moom Pastef rek ak ànd nekk benn booloo moo ñu ko yombalal loolu moo tax lépp yomb bu ñu xëyee daal ñëpp nekk ci rek am organisation ko defee dara du tardé yëpp ay parendoo macha allah. macha allah démb dong mu ngi ñu soññu démb dong bu ñu jullee pare mun naa ñu màggal gi lu mu xat xat xat terewul seen farata yi ba leen ko fàtte dee leen jàpp di julli ndax loolu moom mooy farata. waaye topp màggal gi xumbaay mbeeg bumbaay rek ba doo jaamu yàlla amul benn sens wax dëgg yàlla fu mu toll lañuy soññ di ñu dànkaafu di ñu ñaanal mu nag ku baax amul benn problème. Fat hmm, Bintu Camara Ziguinchor ah métti woon na mais bon jaar na ko di ko euh, deuxième fois ren mooy sama deuxième fois may ñëw euh, c'était l'année passée ah genre gis naa ko côté côté positif mooy loolu parce que genre comme d'hab rek mooy loolu màggal bi neex na gan yi dañ teru teeru nice affaire yooyu noonu du coup ça s'est bien passé. ah sëñ bi moom amul morom pour dire vrai macha allah waaw parce que ren moo nekk sama deuxième fois mais c'était pareil comme daaw euh, je suis bien accueillie affaire yooyu noonu du coup alhamdulilah. non yoon moom amul jafe-jafe ndaxte Serigne Touba moom jaral nañu lu nekk. sëñ Tuubaa moom mooy suñu yaakaar xam nga fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi suñ ko yàlla mayee ñu mën ko teew dinañ ko teewee waaw si waaw man moom en tout cas maa ngi rappelé wu si luñ ma wax ba ay 98 ba léegi maa ngi màggali moom waaw maa ngi màggali maa ngi màggali 98 ba léegi waaw sëñ Abdou Wahab Mbacké moom man moom su may wax si moom sax du ma fi jógee parce que nit ku oyof la nit ku baax nit ku bëgg ay taalibeem waaw nit ku fonk ay taalibeem sëñ bi moom nii la mën a mel parce que dafa yaatu dafa baax sëñ bi ak foo ko mën a fekk si occupation boo ko ne sëñ bi kobo sax sëñ bi wuy la waxtaan ak yow door a dem fu muy dem kon kooku moom mat na sëriñ te ñun ay taalibeem dañ koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu bëree bëri si darajay borom Touba darajay borom Touba darajay borom Touba yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Wahab Mbacké waaw loolu lañ ko ñaanal soxnaam su baax si na yàlla yàggal ko moom ndax man ko baax lu bëgg mbokk sëñ Abdou Mbacké Adja Jaxate tam ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam yàlla barkeel leen te guddal seenu fan yokk seen wërsëg yokku seen teraanga maa ngi ñaanal ñëpp di sant yàlla bu wér soxna si ñaam waaw xanaa sama cant ak moom maa ngi koy tàmbalee ci sëñ Modou Patax di bàyyam ba may fekk yaayam foofa booba day bokkut ak tey booba neex naa xool trop tey neex naa xool baax mun ñaanal te di ko sant mboolem ñu dëkk ci kër gi ñëpp rek tout dañoo baax bëgg ma fonk ma tox ma cër boo xam ne bi tabaarkalla wax dëgg yàlla sant naa leen gën mi te di leen ñaanal nag du fan na ko wér moom wax dëgg yàlla moom gën nday fonk ndey wax dëgg yàlla nu muy def ci ndey yàlla nag ko yàlla fay sant naa ko gërëm ko di ko ñaanal nag yàlla guddalu fanam ak lépp lu bëgg yàlla na ko yàlla may